waaw salaamaaleykum maa ngi tudd Serigne Cheikh Kandji maa ngi jiite kuréelu ndaw APR yi nekk fii nii si Thiès étudiants yi ak euh, élèves yi donc li waraloon woote bii nii mooy jamono yi weesu nii rek njiitu réew mi euh, dafa prononcé wu si mandaawam bi donc bi ko conseil constitutionnel joxe xalaatam donc jël na décision. maintenir mandat bi pour sept ans depuis boobu nag ñu bëri ñu ngi wax coow li bëri na ñu bëri ñu ngi wax surtout ñu nekk ci kujje gi looloo waral tey ñun tamit en tant que ay ndaw APR ñu génn fas yéene wax ak population sénégalaise bi duñu manière général mais tamit surtout ñi nga xamante ni nii ñooy waa Thiès fi nga xam ni fa lañ dëkk donc gis nañ ni njiitu réew mi euh, ci démarche am def na lépp li ko yoon mayoon pour mun a sàmmonteeg kàddoom mais si biir loolu noonu gis nañ ni tamit euh, conseil constitutionnel bi nga xamante ne nii moo tënk bépp sénégalais ba si njiitu réew mi xamal na ni ko loolu noonu mënul nekk donc njiitu réew mi tamit mënul def lu dul dëppoo ak loolu parce que moom moom mi nga xamante ne nii mooy le gardien de la constitution donc mënul woon def leneen lu dul loolu. donc ñu bëri tamit ñu ngi wax opposition baa ngi wax fii ñii naan dañuy appeler au boycott affaire yooyu li ñu leen di xamal rek mooy lenn que ni lii nii njariñu sénégalais yi moo ci nekk njariñu askan bi moo ci nekk. parce que bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu fàttalikoo 2000 2007 kenn ci ñëw muy Idrissa seek tàmm na tàmm na def affaire yii nii muy def maanaam bu ñu waree jox décision bi peuple bi moom du ci d'accord ndax la ay manigance lay bëgg ay njublang lay bëgg mais lii nii njiitu réew mi jël ko jébbal ko askan bi maanaam joxaat askan bi seen kàddu bi nga xamante ne nii Abdoulaye Wade mi fi nekkoon 2008 la changé constitution bi par voie parlementaire loo xamante ni nii askan bi yëguñu ko tinuñu ko parce que depuis 2001 le référendum gëj a am lii nii nag je pense que ni njiitu réew mi Macky Sall delloowaat na askan bi seen baat pour ñu prononcé wu ba xam mandat bi. juróomi at lañ ko bëgg wala juróom-ñaari at si ginnaaw loolu tamit euh, euh, euh, président de la république njiitu réew mi yi nga xamante ne nii mu koy proposé sénégalais yi fukk fukk ak juróomi ponk la am na ponk yu bëri yaakaar naa ni mandat bi kese nekku si li nga xamante ne nii moo gën a soxal sénégalais yi am na yeneen ponk yoo xamante ne nii day gën a dëgëral suñu démocratie réew day gën a may sénégalais yi seen i seeni i droit gën a dooleel opposition bi gën a dooleel assemblée bi e yaakaar naa ni loolu njariñu Sénégal la njariñu génération yii di ñëw la quoi donc moo tax ñun nag ndaw APR yi nga xamante ni ñu ngi Thiès taxaw nañ temm pour jàppale suñu président ba nga xamante ni nii yéene boobu mu am pour askan bi le 20 mars incha allah euh, Thiès fii nii ñu ñëpp dem génn voté ji ñëpp voté waaw pour pour pour euh, référendum bi quoi donc. je pense que ni si gàttal loolu moo ñu fi indi woon pour waxtaan ak population bi pour waxtaan ak population thiessoise bi di leen ñaax am na tamit loo xamante ne nii ñi ngi koy waajal bu référendum bi jegesee gën a ñaax askan bi dugg si lycée yi si université yi si euh, euh, école de formation yi pour mën a gën a ñaax suñu moroom yi donc si liggéey boobu lañ nekk nii di gën a féddali suñu kóolale si ginnaaw njiitu réew mi ak si ginnaaw sunu coordonnateur départemental bi nga xamante ne nii mooy ministre Augustin Tine donc mu ngi jàppale bu baax si liggéey bi ñu ngi si ginnaawam pour président Macky Sall yàlla dimbali ko ba li nga xamante ni bëgg na ko pour askan bi ñu mun si yegg ak jàmm.